gis euh, ñu ngi si hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga euh, ak délégation le ministre de l' intérieur ministre des transports terrestres ak ki nga xam moom moo di monsieur le ministre Moustapha Diop ñoom ñëpp ñu ñëw tey hôpital bi hôpital bi nag fees dell. voilà maman na nga uh-huh. dee waa gaañoo lii la gaañoo. Uh-huh. génn yaayam jëmale yaayam kese mu ñëw fi di oto bay sama doom ngeen ko dundee. Big, big, yun ko na. र ngeen kono ko noonu mu nekk si hôpital Amadou Sakhir Mbaye uh, uh, bu Louga ñaar Mbaye Sam mi noonu uh, mu di donc euh, yéen a ngi koy gis noonu si image yi ñu ngi fi nga xamante rek moom mooy euh, sa douane euh, hôpital Amadou Sakhir Mbaye mbooloo mi wàññi leen coow li ragal leen yàlla daanaka ambulance yaa ngi noonu ngeen di seen noonu ñoom tamit ñu ñëw ndax am na si ñoo xamante ne rek ay blessé la yi ñu faj jamono ji euh, ngeen gis tout à l'heure fee sa duwaanu stade bi également euh, hélicoptère bi ñëw na ngir rawale ñi nga xamante ni ñoo si am ay blessés graves euh, rawale leen ci hôpital principal bu Dakar loolu également nekk loo xamante ni rek lu métti la ndax ak bi sax ñu ngi wax ne ñaar fukki nit ak benn ñoo si ñàkk seen bakkan waaye bëri na si ñoo xamante ni am nañ si ay gaañu gaañu également en attendant ñu toppal leen xibaar bi xool voilà ñu ñu jéem a